mu mel ni kon nag wattandiku rekk téye sa pas-pas rekk bañ a dañ kumpa ndax cheikh itam loolu la waxoon te mat na bàyyi xel bi mu tabaxee jàkkam ja ca fas te jàkka ji yàgg lool noppiwul te am mag nag ñu ñëw seet si ko ni ko danoo bëgg nga may nu ndigal ñu mottali ko mu ni leen yéena ma ëpp leen lu ma ko mottali ñu ni ko déedéet mu ni kon nag dem leen ñibbi amruhu qaimun billah ñu xam ni du jàkk kese kese amruhu qaimun billah ñoo xam ne du jàkka kese kese ndax fa la saariyatu dahab nekk waaw te booba fekkul mu noppi